sama gaay <laughs> eh, bëggee ñëpp di bëggee ñi bëggee Malathion TV ñi bëggee samay chronique xam ne samay chronique da leen da leen di gaañ meen dina am seen aka ay dëmm bi aka ay Mourinho aka ay xalif général kulli chroniqueur loolu la yàlla dogal sama gars yi tey lu ma indi tey tey maa ngi di euh, benn son dip buñ naan lan live nekk ci album bi LNN loo ñëwee ñàkk dina am seen euh, loolu laay chronique tey tu donc euh, damay def xam naa première partie ak deuxième partie parce que lyrics yi dañoo bëri maintenant jëkka dóor deux couplets yu njëkk yi après troisième bi troisième bi nag dafa riche mais dama def ay part one ay problème bu bëgg ak yow noonu quoi saa yi Balla ñun lii dañ ko def par passion mu dem ba audience dam ñu ci donc bu ñu ne li ay vues yooyu noonu quoi Neymar bu muy football il faisait ça pour le plaisir nekk ci mbedd mi di football ba ñu xëy signé ko pro dégg nga Balla Gaye daan bëri ma fat ba ñu xëy kii ko lu tax waxoo Balla Gaye xaalis a tax muy bëri wala Neymar xaalis a tax muy football parce que dala ciy dab donc ñun bu ñu demee tey jii ba audience dam ñu ci ñu mën a monétiser ñu seen am ci dara we do it ma bro léegi noonu laa L I mooy maanaam la vi tu vois la vi quoi mais généralement bu duggee ci son bi di mën a son bi nekk na benn genre autobiographie quoi wax na ci moom wax na ci moom euh, vie privée am quoi maanaam comportement am ak relationnel bi comment les gens sont hypocrites c'est nit ñi nu ñu hypocrité ak sa manière de voir la vi tu donc en gros wax na lépp ci life quoi moom moom moom sa vie la vie en général ses relation avec les gens loolu maa ngi ñëw démb chroniqueur bi ñëw indi ko ci lyrics bi pour dire que maanaam autobiographie la mënoon am na autobiographie maanaam une part personnelle boo xam ni maanaam tempérament dib la boo bëggee xam ne yow dib dund gis mooy kan comportement am kan la déglu live mu ngi ñëw si premier si première phrase bi nee doom rongo ñu mbégte mère bi laa la fompe foofu xam nga am na benn doom quoi tu vois mu ne doom rongo ñu mbégte mère bi laa la xam nga doom mbégte la

boo xam ne tey ji maanaam moom yaayam la koy jox te tey ji dafay neex yaay ju ne sa doom bu góor ba may doom sa premier sët nga kontaan mën nga am ay sœur nga am ay ñuy sëy yi di am ay yeneen doom mais ñooñu duñu du ji mu sëy ji ku sant njaay doom bu góor genre nga doom sa yaay day kontaan parce que yaay laa ko sama yaay laa ko parce que bu sa yaay bu gisee premier sëtam day kontaan genfil ah, day gën a bëgg doom rango ñu mbégte mère bi laa la fompe dina am seen kooku mooy première phrase bi quoi bu la neex ngeen bañ a d'accord de waxuñu ne ñun li ñu wax moo am dañuy interpréter rek léegi mu ne bu dul gedd ay nit man awma benn problème bu dul gedd ay nit man dip awma benn problème boo xoolee dip dafa bëri ay problème yu bëri dafay relation yu bëri da ko mettre en euh, kii en terme quoi tu vois moo ko ay Elzo genfil moo ko ay moom ñu bëri ñoom tey moom kii moom mel na loolu yëpp mi ngi am mi ngi am ay ay problème gis naa fi mais moom n'empêche que moom nit ku baax la mais peut-être ay principe la yoo xam tax eh ma nekk ay fekkas ndigas tu vois mais bu dul loolu noonu bu ma si jugé xoolal yeneen côté yi bu dul gedd ay nit pourtant amoo benn problème ñoom ñooy def affaire dëmm rek ma nekk noo xóor sama gars yi ñu jaaraat ci beneen bi rek mu ne mën naa compter ci xaalis bu ma mënul compter say mbokk jeex boo reyee xarit ak noon yi la doon xeex mën naa compter ci xaalis bu ma mënul compter foofu dib bi nga xam ne moom na ko gars yi xam xaalis moo ko gënal nit ñi parce que les gens sont hypocrites soo amee xaalis di nga di nga am nit di nga am ku ne la bëgg soo amee xaalis di nga may xarit parce que ñoom xaalis moo leen indi lépp moo tax mu ne moom léegi ci xaalis lay compter mën naa compter ci xaalis bu mënul compter ba pare nag sarfa ñu xaat ne say mbokk jeex boo reyee xarit ak noon yi la doon xeex xam nga dañ naan ku rey say mbokk ku rey say say mbokk jeex mais dafa bëgg wax ni maanaam euh, sa si sa si sa biir euh, mbokk yooyu maanaam maanaam say mbokk jeex boo reyee say xarit yi sa biir entourage ah ñoo maanaam ñoo ñoo gën a yéene sax li naan boo reyee say noonu say mbokk jeex say biir entourage maanaam say xarit yaa des jaloux ñu lay gasal kàmb di la ree di la siiñ nii affaire yi ne bu ñu sañoon nga daaw ñi nga xam ne jii maanaam euh, say noon say biir mbokk la ñu ne parce que moom dafa jël ne maanaam boo mu jël phrase bi dëpp ko jël mënoon na boo rey say noom say mbokk jeex maanaam tey say mbokk jeex boo rey say xarit ak nga fekk say noon mais xarit bi ce sont les faux amis xam ne ñoo lay poignarder dans le dos tu vois donc foofu lay waxee quoi maanaam tey jii mbokk mbokk sacréetul daal fa la di bëgg yee mbokk non ay mbokk dañuy bokk ay mbokk dañuy wax ci lu rafet mais léegi say mbokk la gën a métti say mbokk ñoo la koy def caalal ma nigga mun a jëlaat ni pale milliardaire ni Thione Seck ay waay dëmm bi ma ko maa loolu tax gars gën a dee nag parce que lii it's so natural it's a dedication yàlla moo ko may meen mun a jëlaat ni pale milliardaire ni Thione Seck jëlaat ni pale milliardaire ni Thione Seck moom nee na moom dip moom il n'est libre xam nga tey ji boo nekkee palais da nga war a maanaam jëllaandi palais maanaam dafa ne maanaam tey xam nga palais boo fa demee Macky Sall tey ji n'est pas libre saa bu xëyee rek dañ koy dicté lu muy def si si si kiiw sénégalais lay ne mi ngi jéem a xool nu ñu amee courant nu ñu amee ndox nu ñu amee liggéey affaire na donc il n'est pas libre jëllaandi palais moom moom mën nañ jàpp ne moom dib dund gis gars yi il est moom il est free genre artiste la def mais moomatul boppam artiste la léegi album bi kañ lay génn genre dib doo ñëw fii fan si club bi dib lii dib lii nii moom dafa ma dem ba léegi moom moo foofu day mel ni benn comparaison moo ko Macky Sall la bokk amatul vie il n'a plus de vie c'est un prisonnier prisonnier de ses fans moo tax jëlaat ni pare milliardaire ni Thione Seck milliardaire ni Thione illusion la ñëpp nañ ne Thione Seck ni pare fi sama fans ñoo ma tënk te parfois may bi may bi sax li yaakaar ne man moom laa yor moom laa am aw ma ko man problème mais ñu mën a gis loolu parce que illusion bi kese la gis tu vois donc noonu laa ko interprété sama gars yi comme beneen rek nga dóor ko ci suuf mu ne fen laa ni dëgg te ba léegi mu ngi ci affaire illusion boobu ba léegi illusion bi ba léegi comparaison bi mu ne fen laa ni dëgg bu bu fen laa ni dëgg bu yàq diggante fen laa ni dëgg bu yàq diggante amaana moom dib tey ji peut être bu leen wanoon moom lu muy dund dëgg Saint-Ville ngeen ne non xalaatu ñu ne dimmi ngi dund lii mais xam dañ naan dëgg buy defar dëgg buy defar moo gën fen buy yàq dëgg buy defar moo gën fen buy yàq léegi moom il préfère jouer le les artistes dañu wane li rafet si ñoom rek alors que intérieurement ñu ngi souffrir wala intérieurement ñu ngi dund loo xam tey ji ne fen laa ne dëgg wax kenn du ko wax xale na xaru wala suñ ko waxee tey kër ga mën yu bëri ni ñu wane di ko wane nii am na ñu beneen vie boo xam ne tey ji gars yi mënuñu ko këpp mais dañuy wane li xam ne tey ji ils sont ñuy ree te sax fu ñu ree di wax di wax nekk nekkalu tey nekkuñu parce que tey jii moomatuñ seen bopp ay waay ma la divorce bu neex divorce bu neex mariage bi di woon love rek bu neex mariage bi du woon love rek ndax tey jii maanaam nit ñi bu ñu bëggantee suñu bàyyante day rupture dañuy misère mais tey divorce bu pare ngay rëyee kël naan man dellu naa ko yaayam dellu ça parce que maanaam tey l'amour c'était pas basé sur de vrais mais sur le matériel moo tax mu ne divorce bu neex mariage bi du woon love rek mais xam naa lii trois parties lay doon kon couple bu ne dama koy defal kii quoi bi mooy part one bi ko def part ko part three nga foog ne jéem muy yëy mu ne sëgëm yàlla mooy fay xol kon jox ma samay som rek sëgëm yàlla mooy fay xol kon jox ma samay som rek nee na comme ça léegi maanaam di fa lu mu bëgg a foofu mooy tey jii le dernier moo revient à Dieu yàlla mooy wax kii mooy dem safara kii mooy dem kii àjjana kii nii vi bi nii nekk yi àdduna bi ñu ne nii nii. xoolal œil pour œil dent pour dent ku ma ameel xaalis nag ma fay mën rek lay jaamu yàlla moom moom àjjana kii ku ko soob la fay def waaw kon nañ loolu comme que yàlla mooy loolu moom a dama koy continuer quoi kii lu ma méttage ak yoonu dama koy continuer quoi parce que man dëmm la ma ko doon def trois parties mais bàyyi ma may leen béy parce que kanam mooy loolu fii nee na hmm, saa yi dama kaa dagg man dama koy dagg dama koy dagg quoi benn parti bi ngi nii mais dama koy dagg deuxième ku bi dama koy dagg dama koy dagg parce que nee damay leer su may dox ci lëndëm lëndëm su may dox ci leer ah xëccëw ma oxygène ni kuy ni kuy dund comme ku dee ñi toog si nen damay sànni fëg yu mel sa bàyyi si docteur góor jigéen bi lañ ko jongule gars yi suba rek dama koy dagg sama gars yi bëgg dama koy dagg maa la ko suba loolu yëpp day pour trois parties laa koy def three part aka dëmb bi xale général ku li chroniqueur du ma chronique lu oyof nag ngay bind lu diis mais lu oyof moom def lu yomb rek a jafe si imam